fi ngeen ñëw nii Euh, fii la sëñ bi dëkk fukki at ak juróom ak ay weer euh, fii mooy résidence Khadimou Rassoul koy xantul mu baraka pàkk bu barkeel bi fii la sëñ wax ni loxoo xitaabi amatal si dadaa bu xatee lëtii tunel baradaa nee na fu leer fu nekk dara yee pàkk bi la leere euh, fii ngeen ñëw tey benn béréb la ci kaw suuf béréb la boo xam ne béréb bu mat a ñëw la béréb boo xam ne yàlla na sol daal weñ di dox ba mu xar ngir agsi fi rek waaw kon bu leen yàlla defalee tawfeex gi ngeen agsi fi ndax sëñ bi daal na ko naan sama wàll wi ku fi ñëw moo la fi yebal bëgg fee ñëw taxul nga ñëw fi kon loolu tam dafa bokk ci sant yàlla yi nga xam mën nañu ko sant suñu borom kon sëñ mi ngi sanc fii njaareem le 15 janvier 1913 fii dëkk fii ci bokk bi ci kër gu mag gii mu ngi ko sanc le 15 janvier 1913 waaw fii la dëkk nii ñëw dëkk fii kër gi yaatuwaay bi 300 mètres la euh, guddaay bi 500 mètres 300 sur 500 mètres carré noonu la kër gi yaatu parcelles yi tamit lu mat ay kees yi mën na juróom benn fukk nangam ci ay kees yu nekk ci kër gi waaw ndax kër gi sëñ bi fi dëgg see ñeenti xaaj la ko def kees goo xam ne keesu boppam la bokk nañ kees gii nga xam ñu nekk nii kees goo xam mooy keesu jinne yi ah kees gi nga xam ne mooy béy ci rasul kees xam ko jagleel ak kees gu nga xam ni moom foofu lay wéetale borom nga xam ko fo moom kër gi xaaj noonu la ko la ko defoon di fi jëpp ko ja di fi ah, ngeen ñëw kees gi ngeen nekk nag nit bi fii mooy béyti fii la wàcce liggéey ci Zahir le 19 juillet 1927 fii la jógee ñibbi Touba waaw garab gii fii la mujj toog waxtaan ak mag ñi garab gi mooy garabu xay fii la mujj toog dajale ñi nga xam ni mag ñi nga xam ñoom la doon liggéeyandool ñi xam ñoom bis bu nekk bu ñu xëyee moom jël ci ndigal muy sëñ ma limu Diop Dagana sëñ Matal si la mbëkk néeg sëñ Kale sëñ Mudu Sari euh, sëñ Mbay Sarr euh, sëñ Mbàkke Jaxate Baye Mbàkke Diouf ñooñu nga xam ni saa suñu xëyee suba ñoom dana ñëw ci sëñ Tuubaa mu jox leen ndigal ñu nekk ñu ñu ñu ñu ñoom la dajale fii ci garabu géej gi def seere ci garab gi di sàllaaw de bi garab gi bokk nañu li nga xam ne yàgg di wu fi ndax moo ko jëmb ci loxo boppam dana ko sóot ci sasaram ba ñëma àjjana fi la ko jëkk fekk toog mag ñi di moom ci njëkk ak teraanga fii nee na ñëma àjjana fi la ko jëkk fekk ci garab gi waaw keroog tamit da sëñ mbay saat si mi mbubam ko garab gi sëñ tuwaa ne ko mbay saat ana muskalaf lu muy defee yaram ci biir nit mu ne ko mbàkkee garab goo xam yaa ko jëmal ci loxo bopp sa loxo bopp daana ko ko ci sasal la nga ne ñoom ajal fii la jëkk fekk garab googu mën naa warmaan suñu tuwaan di ko sikkul bés na ko tey dama taxanal ma taxeel la nga xam ajjuma bu jot boo fi ñëwee ku fi nekkal fi jamono suñ tuwaale woon suñ tuwaa di taxanal suñ tubaa di ko indil fii ak taalibe yeeg jigéen yeeg ñëpp ba tey jii tey bi tey jii ku fi nekkal xalifa suñ tubaa euh, suñ mbay saal da nga yenu mat indi fii kon euh, keroog loolu fii la xewe woon waaw suñ tubaa nag ci ci jataay boobu mun leen nag dafa am tukki mu waa gi tukki fañ ma jëmb sila mi nga xam ne dénkoon daaray kaamil ni ko Mbàkke nag dootuñu nangu tubaab bi lu yóbbu fen jara sax ñu jël suñu ajat xeex ak moom suñ tubaab ni ko ma jëmb tukki bi wax tukki yooyu tukki bi tukki bu sore la bu nga xam ni yéen dootu leen ma gis waaye mu ni moom fu mu ne dañu gis moom suñ tubaab kon ñun mi ngi ñu jàkk dañu xool nii fi mu toll waaw waaw yàlla fekk suñu aajo nag li ñu tax a ñëw fii moom xam na ko yàlla dimbali ah, ndimbal gu mat gu matale jàll mu sowa kon mu mu leen nag dama ah, ah, dafa am tukki waaye gi tukki tukki boo xam ni yéen dootu leen gis waaye moom mu ni fu mu ne danañu gis mu a ngi jamono gi naqari ku ci bëgg mucc na nga sax ci jaamu yàlla tey muñ lu bare te lu ngeen am ngeen doyloo ko loolu la suñu digle fii kon nag muñ ana kon loolu bokk na ci njaboot gi boo boo toogat ak ñoom da nga leen jàngal nuñ parce que muñ rek dégg muñ rek taxul nga xam ne ñuy muñe ndax muñ dafa bokk ci rafetal gis nga suñ toile li mu nekk tubaab bi yëpp ñun ñi sax sag la ci ñun ndax mosuñu dégg fu mu onkee onke mosuñu dégg fu mu fu daan daan xiif di mar tumuraanke sonn waaye kenn mosu te gis ay jafe-jafe kenn mës ko gis ci kanamam kenn mës ko jëmm kon muñ ay jikko yoo xam ne il faut que koy incarné mu nekk sa jëmm nekk sa xol nekk sa yaram nga koy jëfe nga xam ne ab sang ngay doon waaw waaw sëriñ ak sang dafa bokkul sëriñ moom ku nekk mën naa sëriñ waaye ab sang nag moom sang mooy doon imam waaw waaw bu ko tànn bu fekkee ne koy tànn ñu ko war a tànn mooy kooku mooy nekk imam sang mooy nokk mooy nekk jëwriñ mooy koo xam ni du fen du sàcc du du jikko yooyu nga xam ne dañ ko xeeb yëpp daf ko daf koy kii du xëccoo loolu mooy jikkoy sant waaw waaw waaw kon euh, jël tay fi jox suñu ma jëmb si la ko boo demee dañ ko def juróom-benn buntu ngeen ko ubbee kaamil di ko tëjee kaamil bi mooy daare kaamil loolu la digle fii laata bis bi dellu si ñibbi na Tuubaa sëñ bi sawa ñi ay yoon nañu bëgg ziare ah dana fa waaw kon kon loolu loolu suñu digle fii moo yore nig bi fii di ko saytu Baye Moustapha ñaan nag moom dafa nekkoon ak sëñ Basiirou la fi nekkaloon dal bisimilah. ah. waaw. waaw néeg bi tam maam Cheikh Fall joxoon liggéey sa néegu àjjana néeg bi ne nga may moom moom moom nga may defal waaw. maam Cheikh Fall bi mu ko liggéey ba àgg ba mu tam sëñ bi mu ko xool ne ak eh, mel na lu kawe sama njot ci ci ni ko liggéey waaw kon sëñ bi tamit gis nga ni mu fonke woon maam Cheikh Fall gis nga liggéey bi mu ko bii néeg bi mu ko liggéey fi la nekk tam ba wàcc liggéey tamit ñibbi Tuubaa kon nag nit bi benn bërëb la ci kaw su bérébu ñaanukaay la ngeen fas li ngeen bëgg yëpp ñaan yàlla dafa leen tawfeex garab googu ma leen wax leeral naa ne ko mooy garabu xay gi ah, sëñ bi moo ko jëmbat ci loxo bi naan ko socc sa salaam ba nee na ñama àjjana foofu ko jëkk fekk kon ngeen teewlu ñaan li ngeen bëgg ah, ko def jàll ci yeneen béréb yi bu ko defee lépp lu waay di ziare yaa ngi dégg yi bul xeeb sa dërëm bul yëm sa li ngay am fas ci li ngeen bëgg yëpp dégg ngeen kàttanu borom bi bisimilah mën ngeen teewlu ngeen ñaan bu ko defee ñu àggale ngeen salaam solo yu fi nekk muy ay njëriñ yoo xam ni saa su ne taalibe dañ koy soxla di ko bëgg jëriñoo kon teen bee ngeen gis ne teen bee sëñ bi moom bokk na ñu fi jëkk gaslu bi mu àggee tam sëñ bee génn ci kër gi ñëw ba ci teen bi léemu ko tudde ko zam-zam ci jamono mbas mi peste bi jamono loolu peste boobu ngeen daan dégg ci jamono peste bi nga xam day def ay ravage lay def nit ñu bare di faatu te nga xam ne dal sax kër gi dañ koy taal waaw nga xam ne kooku ay ay sang ak yooyu sax nit xalaatu ko dañuy fexe sax ba yeew bu mu ci tànk bi rek fexe gas sa rek fexe ba mu def ko ci noonu la noonu la wér kii bi métti woon noonu xam ne ñu bare kilifa yu bare jógee fenn fu ne kilifa fa bëgg sëñ Tuubaa ngir mucc ci mbas moomu di ay ñaan ci saafara def la ko ci teen bee ni képp ku moom bu amee ci ndox mi ci saafara lu mu ci saafaraw mu saafaraw mooy teen bee gis nga ko dañ koy ràññ saa su nekk fi mu toll ndox mi dafa jeex léegi liggéey ba noppi noonu lañ koy koy jàppoo Tuubaa fu nekk sëñ Saaliw moom seere naa moom bu daan yónnee saa su di ko di xam ni saa su ko daan siyaare ji Tuubaa daan na yóbbal daan ko yóbbal ñaari biton vingt litres waaw kon teen bi mooy zam-zam mooy ay xar baaxutoon jumaa ji tamit ngay gis nii mooy jumaa ji nga xam ne sëñ bi moo ko liggéey teg doj bu njëkk wi ñu tàmbali liggéey ba liggéey bi ba liggéey bi àgg ci kanam mu mel nii mu mel nii nga xam ne jumaa ji sëñ bee ko meloon nii moo tax sëñ Saaliw bu ñu ko daan yeesal bu daan joxe ko yeesal ko dañ koy yeesal waaye melo bi bu ko kenn soppi moo tax ay karo waaye karo yi sax dañuy wut karo bu mel mu couleur bu mel ni ko sëñ bi xoolee woon noonu lañ koy defee kon sëñ bi moo teg doj wi le 11 mars 1918 1924 jumaa ji àgg sëñ bi inauguré ko dugg ci biir jullee ci ko bi jumaa ji àggee tamit sëñ bi nee na bu fekk lu ñu wutal tur la najaatu ahlul lardi wa misbaahu ahlu samay li tudd mooy leera waa asamaan di musal waa suuf jumaa samay nee na jumaa ji kat ñaan na fi boromam ba nga xam ne sobe du fa dugg képp ku ànd ak sobe booy dugg ci biir sobe ji moom du ànd ak dugg ci biir dañ ko téye ci biti nee na bu dee ku ñuy war a dimbali nag ku mel mel na ñun ñi tey bu ñu duggoon ci ak bëgg gi ñu bëgg sëñ a yëkkati bu ñu duggoon ci biir tamit soobee boobu ko yóbbaale feneen koy bàyyiwaat rek waaw waaw waaw waaye nee xam ne koo xam ne nag moom zaay rek la tax a jóg ngay dañ ko ma ba dugg ci biir tamit sobe yi du dugg ak moom ñu ko ci biir buy génn nag day yóbbaale waat jëfam rek waaw kon jumaa ji sëñ bi moo ko liggéey ba mel nii daan ci julli julli nag waaye mosu fee julli farata nag julli naafi rek laan julli léegi mu dugg fa julli fa ñaari rek wala ay ay ay rakkaam génnaat duggaat ci biir kër gi. waaw mi na mais 1926 27 at mu mujj bi nag bi nga xam sëñ bi ak ah, ci la ci la at mu xam ci la sëñ bi ak korité bi moo ko jiite mbooloo mi fii. ma ngi ne loolu ñu mos a gis bu jiite ci mbooloo ci jumaa ji ci jàkka ji waaw ndax korité yeeg tabaski bi daan ñëw boobu naar shérif naar yi daan jógee gànnaar ñoom la sëñ bi daan jiital ñoo daan jiital ñoo daan jiite korité yi di jiite tabaski yi ci fii dégg kon loolu mooy taarixu jumaa a ngeen xam ne mi bi neen képp ku fa dugg jaamu fa yàlla ñu jégal sa bàkkaar yi waaye nag jàkk ji ñu dëgmal rek fii bu ñu duggee ci biir jàkk ji ñu jàkkaarlool moo doon barak bi suñ photo photo bi suñ photo bi suñ boobu mooy jàkk ji bu ñu duggee moom la ñuy jàkkaarlool noonu waaw 1960 bi la ñu dindi barak bi daf fi tabax boobu waaw bu ñu duggee ci biir lañu sëñ bi taal fi mu daan taxaw di jiite mbooloo mi benn gi daal ñu ko def ci digg bi jàkk ji ñu duggee ñu sukk foofu ñaan fa suñu soxla waaw dañu fekk suñu jëwriñ sëñ mooy suñu jëwriñ mi dégg nga waaw waaw mun mun a jàll nag ci weer jàll ci keesu téere yi fi bagage Sëñ Tuubaa yi nekk ak béy tëlësoon néeg bi yonte bi ganisee Sëñ Tuubaa jaxran ngeen sappe ñi xam jooy comme julli wala tàkkusaan ñi mën a ñun ngeen barkeelu lii rek tawfeex la jullee fii tàkkusaan fi Sëñ Tuubaa jullee loolu moom ñu bari bëgg nañ ko waaye mën na ko waaw <laughs> waaw bisimilah mën ngeen mën ngeen sàppe ngeen teel imam mën a la kon dañuy seen fan feneen lañ ma jub kon waa fii njaarim gi li fi nekk kawe na njort ci ay ay xarbaax yi ngëneel kër gii fii la sëñ Saliou wàcc fii la sëñ bi aje fii la sëñ Saliou ganee ganee jamono ah fii la ah, sëñ Abdaat fii la ganee jamono fukki doomam benn yoon nekk xuru Mbàkke ñëpp fii lañ ganee jamono jublu xuru Mbàkke ah, dégg nga ah sëñ Mbàkke Madina fii la fii la ganee jamono kon fii benn béréb ci kaw suuf béréb la béréb wàccuwaayu ngëneem la ku fi ñëw rek na nga sant yàlla bu baax sëñ bi neen sama wàllu bi ku fi teg sa tànk boo fa jógee foo teg sa tànk ku fa teg ko kon loolu chérité la bu nga ne dañ ko yóbbaale loolu rek dafa doy chérité wér tey boo ñibbee sa kër jéego yow foo foo teg sa tànk rek ku fa teg tànkam ñu jéggal ko am na ñoo xam ñëwuñu waaye yéen a ngi yaram waa foofu te suñu tool lu wax rek dëgg la te boobu misaalu ko ci ci dawkat la ko misaal xaj ci ab kalbu ci la ko misaal ab dawkat de bu duggee sama wanag wii ba génn fi dawkat fu mu teg tànkam yàlla ji taw foofu mu tegoon tànkam ñax sax fa nag yi ñuy jëfandikoo wala xar yi wala bëy yi lu ci lekk ku naan ca meewam wala nga lekk ci ndawal yàlla jégal te ñun ay doomu aadama la waaw dégg nga waaw kon ngeen xam ni fii benn béréb la ci kaw sox fii nag la siñ bi daan dëpp jëwum yu tedd yi di sujjóotal boromam di rukkool borom di toogaay yu tedd yooyu taxawaayam beeg rukkoo yëpp fii la ko daan defe fii la daan taxaw dégg nga fukki at ak juróom fii la daan taxaw dégg sëñ Moussa Kane wax la ndax sëñ Tuubaa kat gis nga moom bi muy dem tubaab bi di ko yóbbu ñun boobu ñun ñëpp la jaroon ñu jaay suñu bakkan dem xeexi waaye sëñ bi def ñu toog leen ma dem liggéey ñëw ngeen añ kon sëñ bi gis nga xeexloowul kenn sànniwul kenn ay xeer waxuma ak leneen nag kon fu coow amee yéen toog leen seen biir kër ngeen jël seen xasida ñaan yàlla lu leen naqadi ñaan leen ko yàlla lu ngeen bëgg ñaan leen ko seen borom yàlla mu mën a saafara dégg ngeen noonu loolu ñun murit noonu la mën a mel noonu lay def ngeen xam loolu jëwri ñëw tam loolu sa wàll la saa su nekk jigéen ñi góor ñi nañ leen xamal ñu teg seen tànk fan la sëñ bi ko daan ñëw ci moom bu dee góor nga nga ñëw di jaayante ak moom lu mu lay laaj noo ana noo def ak say lay jëkk laaj nga ne ko say waajur ay mag lañ mënu ko demal toppal ma ne ma nopp la gis nga soog a ma gis nga loolu tey rek moo gën a am say sëñ bi tey nit di ko di ko di ko di ko kii waaye daal demal toppal ma say waajur ndax xam ne ne ngërëmal waajur dara mënu ko wecc xam la demal toppal say waajur kon nopp la gis nga soog a ñëw waaw ñun ñi fi day fii ñëpp tey rawante bi mi ngi mi ngi ñi ngi xam ni làq nañu seen ngërëm la waa ji indaale ko fii ñooñu ñooñu raw ak lu ñu góor góorgóorlu ñooñu duñu leen dab ñun ñu amul ñun ñu melul na ñoom ñu amul ngërëm la waa kon waajur ci la gis nga sëñ Tuubaa bi fi waajuram nekkee maam moom la si nekkee day sàkku ngërëm ba nangul feeñal dara topp ci nekk nekk mel na ko yorul dara te boobu lépp ngi ci moom xam nga li lay wan lépp ngi ci moom waajur bi muy làqu daf ko dégg boppam wax li mu ragal foofu yàpp wax ko <laughs> sëñ bi nangul ko ko waaye teewul comme waajuram la rek yàlla moo ko nattoo loolu mu nekk ci kanamam di dund nangul feeñe dara lépp rek ci ci kilifteef la koy teg waaye gis nga bi bi suñ maam moon si ne diis rek dafa woo gaa yi kaay leen nag léegi ñu waxtaan nii ak nii ak lii wax leen ni ay tracé ba ay ay projet am li mu bëggee mu wax kon dégg kon nga xam waajur dafa am solo liggéey suñ tubaab mi ngi tàmbalee ci sa ndey ak sa baay foofu la liggéey sañ tàmbalee foofu nag ku ko échec xamal ni lu péga maanaam maanaam bokkutoo ci programme ak loo mën a xasida yi loo mokkal ci xasida loo mën a kii itam amul dara dara lu mën a dugg ci yow xam nga balaa ngaa mën a ak li ngay def il faut mu mën a agsi ci yow waaw waaw kon nag foofu la foofu la nekk moom mooy moom moom waay bi foofu la. jàkkaarlool nit bi ñu jàkkaarlool nii tabax bi foofu mooy béy ci xëluutu ñu wax béy ci kitaab foofu la ay jeexitalu Sëñ Tuubaa yi nekk ay ay satalaam ay këllam ay yenn lal yim fi bàyyi am na juróom-ñett fukki kaamil ak juróom yu nekk ci biir yoo xam yëpp xattu yeddi la mindu loxo la waaw ay mindu Sëñ Tuubaa loolu lépp ngi ci biir néeg bi ñu denc sëñ bi nag néeg bi fi daan bind xasida yi mu daan bind fi daan bind ci njaareem lu mel ne nooru daara ni bi ngeen dégg tey sur asir xasida yëpp yëpp fi la bind ci biir néeg bi tedd bi kon fii mooy fii mooy wax bayti euh, bayti xelwatu ñu ko wax bayti kitaab barak bee ngeen gis bant yi nekkoon ci jàkka ji bant barak boobu suñu bi taxawoon li fi def ci barak bi bant yi def ci ba moom la ñu def ci ay ci biir foofu def ko ci benn weer xam bu gis bant bi mu nekk ci biir bant bi qualité sapin la sapin mooy qualité yi gën a baax ci bant yi moom lañ moom la suñ ba daaje woon barag bi néeg bale ngeen gis ci biir néeg bale ca biir bu weex bale foofu mooy béy térésol foofu la ko yor càllaman ganasee jaxaran ci lu ay gént néeg boobu am fak moom fukki fan ak juróom waaw sëñ bi nag na keroog la ko yàlla xamal dana am fii ci njaareem fukki at ak juróom ci njaareem gii kon néeg moo nekk ne la ci kaw